ay tarixa yu mag ci àdduna si yoo xam ne siiw nañ lool wax dëgg yàlla da ngay jàpp ne ni yoonu murit mel ci Afrique seen tarixa mel na ni ci àddina surtout côté asi Cheikh Omar Ahmad Mohammad Rajab Diib mu ngi jóge ba Syrie waajuram mooy xalifa tarixa bi ñuy wax Naqshbandiya tarixa bu siiw a siiw la mooy Cheikh Ahmad Omar Rajab mooy di ku baax mi ngi fi doog a ñëw nag baayam moo nekk ci xilaafa ga kale mu dendal tam dend ak sëñ Abo Cheikh Souleymane moom itam kilifa la eh, jàppal ne tarixa naqsabandiyya mooy ki ko jiite ci Europe diggante af diggante France diggante mu ngi defe naa Lyon la ma wax eh, diggante côté France ak ak ak Belgique defe naa ci Europe daal mooy ko fa ji tarixa naqsabandiyya sunu mbokk mi mi ngi jóge Soudan Cheikh Omar bokk ci tarixal qadiriyya kilifa la fa loolu moom itam sunu mbokk mu baax mi cheikh mi ngi jóge Watara euh, cheikh Xaadir yi la mi ngi jóge Côte d'Ivoire Sahil Aaj sunu mbokk docteur Idriss Rabo professeur la borom xam-xam di docteur moom algérien la waaye mi ngi dëkk Turquie seen mbokk la mu baax a baax mi ngi jiite association bu mag a mag a mag boo xamante ni day day day dimbale Palestine ak yu mel noonu ak di boole di defar daal di liggéeyal diine sunu mbokki Ibrahim mi ngi jóge Ghana moom ngeen gis noonu. ci ñu doon siyaare sëñ bi léegi la ca doon sàkku ci moom wér du yoonu murit ak sunu mbokki Sénégal yi ngeen àndal ca bokk ci tarixal xaadir yële liye dëkk Makka Kulibanta Cheikh Irfan ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñaar ñaari bokkam yu tedd yee mu àndal ci kenn ki nekkal ko Dakar kenn ki nekk coordinateur am ñooñu ñooy gan ñi nga xamante ni tey ñoo fi ñëw bi ñëwee eh, yeex nañoo ak si lool macha allah waaye alhamdulilah gisante nañoo ak sëriñ bi léegi ñu ngi wàcc fii ci kër sëñ bi. sëñ bi biñ ñëwee nag ba siyaare bërëb bu sëñ bu mag ba noppi sàkkoon nañ ñëw siyaare ñëw ci jumaa ji moo tax mu boole leen nag doomam jee sëriñ Chouaïb bu Mbakke depuis ñu ñëwee ba léegi lu ñu def lépp ñoo ko ànd defe naa sax bañ nañ ko ba ci otoom lañ dugg euh, waaye it sëñ bi yittewoo na lool dëkk bi xolub dëkk bi xam ngeen ne mooy jumaa ji dëgg-dëgg mooy semboolu dëkk bi te ñii ay gani sëriñ lañ kon seeni nattangoo lañ seeni nattangoo lañ mooy ay sëriñ lañ boromi tarixa lañ moo tax fi leen gën a ñor ci dëkk bi jàppal mooy fi gën a ñor ñun rek mooy nag jumaa ji bérébu sëñ bi ak ziyaare sëñ bi moo tax alhamdulilah xat waxtu xat na lool waaye lu ci bare bare defagul nañ ko incha allahu taala ñooñ ñoo fi ñëwoon tey jërëjëf bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy sangu bi yonente yëpp di ñaanal xéewal ak mucc itam mbooleem ay saxaabaam ci njëlbeen maa ngi eh, sant sant gu màgg yu sori ci man lool ci ñi nga xam ne ñooy saytu jumaa ji jumaa ju mag gi eh, nga xam ne dañuy fàttali jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam madinatu madinatul munawwara eh, jàkka joo xamante ne leer ga fay jolle di jëmmal daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy sant ñooy saytu jumaa ji ñi nga xamante ne dalal nañ ñu dalal bu am solo ñu am mbégte bu baax ci daje gi daje ñoom nga xamante ne dundalaat nañ suñu ruu yëgee nañ ci yëg-yëg yu kawe yoo xamante ne moom lañ daan masa a yëg ci suñ sëriñ yi nga xam ne ñoom lañ mas a am ñu taral ñu ak ci ànd ak ñun ñu siyaare barab bu tedd bi bu ñu egsee fi jàkka yëg nañ fi euh, yëg-yëg yu rëy man sama jëm bopp li ma yëg mooy bi ma duggee ci biir jàkka ji yëg naa fi sama ruux dundaat na euh, maa ngi koy wax léegi sama mbokk mi ma àndal sëñ Souleymane yal na ko yàlla sàmm ma jàkka ji dañuy fàttali biñ ci duggee jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa ñu nekk Madinatul Munawwara ñu yëg ne suñu ruux def dafa euh, dafay dundu bi ñu rek biir jàkka ji day mel ne jàkka yëpp melul noonu jàkka yëpp amul looy dundal ruux jàkka yu ëpp léegi ci jamono ay tabax la rek yoo xamante ne euh, doo fekk lu dul ay sijaada ak ay rafet rafetal rek ak yu mel noonu waaye day mel ne yitte woowuñu rek luy dundal ruux ruux nag du dund lu dul ne da nga faa fekk ay nit ñuy jox ci wàllu xam-xam niti xam yoo xamante ne mënuñoo ñàkk ci jàkka ndax ñooy dundal ruux jàkka du ay tabax rek ñoom boo duggee ci jàkka bala nga euh, dajeeg sëriñ ba fa nekk wala imam ba euh, sa ruux day dund bu fekkee ne ne koy yor ñu ngi koy doxalee ci wàllu xam-xam kooku ku jàkk ju mel noonu boo fa duggee bala balaa ngay gis kenn rek sa xel mi sa sa xol da ko yëg waaye soru ruux itam day dund loolu nag mooy li nga xamante ne moom lañ gis fii ci Touba euh, suñu dëkk bopp bi nga xam ne moom laay wax suñu dëkk bopp la ndax mooy Madina dëkk bi di Touba dëkk bu mag bi nga xamante ne amul sikk sàkk ne yàlla dafa bëgg waa Sénégal rawatina waa Touba loolu nag mën nañ ko seetlu ci ñaari mbir. bi ci njëkk mooy mm, euh, dëkk bi nga xamante ne sëriñ bu mag bi nekk na ko fi muy sëriñ Muntaxa yal na ko sàmm ñaareel bi mooy jàkka ju mag ju tedd ji nga xamante ne mi ngi fi nga xamante ne fekk nañ fi ñu koy saytu di ko doxalee ci wàllu xam-xam waaye fekk seen imam bu bari xam-xam bu sell bi wax dëgg lii nag xewal la gu rëy rëy goo xam ne yàlla moo ko xéewalee Sénégal ñu ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu yàggal xéewal yooyu te saxal ko ñu ngi leen di sant bu baax ci teer teertu geeg dalal geeg yooyu yëpp ak siyaar siyaar gi ñu siyaar nag nekk siyaar goo xamante ne ziar la buy tàmbali waaye yeneen ziar yi nga xamante ne moo ci nar a toppaat yëpp yal na ko yàlla def dëppale ko mu mel ne ziar bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi muslu ci seytaane di tudd yàlla ci sama tàmbali wax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal itam mbooleem ñi nga xamante ne ñooy bokkam ak saxaabaam yëpp rek maa ngi sant yàlla mm, mi nga xamante ne moom ma defal taw feexi ma si ma ñëw ziara ji barab bu tedd bi jàkka ju tedd ji ci Sénégal ni ko Cheikh Omar waxee eh, yàlla daal amul maas mosuma ñëw Sénégal waaye lu ëpp fukki at juróom maa ngi maa ngi am yéene ñëw fii mosuma ñëw ci jàkka ji waaye bi jàkka ji bi ma ci tàbbee rek li may xeeñ xet gi xeeñ mooy xet ga ma daan xeeñ sama jàkkay sëriñ ya ma jóge def mel ne rek maa ngi sama dëkk maa ngi samay biir mbokk Hmm, lépp benn la bi ma nekkee ci biir barab bi maa ngi gëm sama bët yi waaye di yëg li nga xamante ne moom laa mu nekkee sama kanam sëriñ Eh, def na ay at ci gannaaw dañ doon taxawal foofu ay jotaay xam-xam yu ñuy wax ci wàllu tasawuf foofu ci Luxembourg ma daje fa ak benn murid wax na fi la bàyyeekoo woon eh, waaye ci biir eh, daje yu ñu doon def dama leeral na ma yow day mel ne lii nga xamante ne moom nga ñu moom lañ ànd di def nii man samay sëriñ moom lañ ma daan wax loolu lañ ma jàngal fa ma jógee muy Touba ñu ngi ñu ngi nekk day mel na ñoo ne ci benn garab boo xamante ne benn meññet lay joxe te loolu lenn mënu cee juddoo soxla ñun ñëpp rek mooy bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kon loolu nag ñun am na leen mbir boo xam ne moom lañ bokkale te mooy ñun ñëpp di liggéey ci luy yokk sunu bëgg yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu dañ ko war a sàmm ñun ñëpp fexe ba sunu bëgg bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo ñu boole ñun ñëpp ñu fexe ba loolu ñu koy kii loolu nag yàlla moo koy seede ëpp na fukki at ak juróom mosu dew diggante Europe ak euh, fi nga xamante ne fi laay dund sëriñ si ma yoo xamante ne bokk na ci Sëriñ Tuubaa mi nga xamante ne mooy mën nañ cee sante yàlla nga xamante ne ci sunu dund wàllu ruux lu tolloo ko fukki at ak juróom a ngi nii mënuma dem sama dëkk ba nga xamante ne fa lay sama sëriñ nekk ngir dundal sama ruux muy libi euh, waaye mënuma faa mënuma mënuma faa dem waaye yal na yàlla fay leen aw yiw fay leen aw Eh, yiw bu bëree bëri daal suma xol sedd na maa ngi sant yàlla bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu يا فتى قلوبهم طرى في السر والجهر بصيرتهم فتحت بنور معارف علاماتها لاحت على الوجه كالبدر سريرته فيها ما يسر ويجهر دموعهم سالت على خدهم تجري على سنة المختار أفشي طريقهم فقد عصموا النفس عن اللهو بالزجر أخي أبغى نفسك دائما عند بابهم وأجعل مكانتهم كما ليلة الغدر زمام أمرك ملكهم بلا قسى وأتبع حين دعوك بلا عذري هم الله راد عيني في الكون مثلهما هم اللازموا حال التأني من الفخر هم ليرشدوا لمريدهم كلمحة ناظر هم ليدركوه في لجة البحر خويدم حضرتكم يا سادة انظروه بعين الردى واحموا نوائب الدهر فغولون مهما كنت في فكرنا فحق على الكرام يوفون بالنزر حروف أريد بها إجعال سمعكم وحاشا لسمعكم إجعالا وتفكر معرف بأبي كسابي محسوبكم أتى محمد زين الذي بكم أمنوه من جوري عليكم سلام الله ما بال حاضر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 اللهم ارحم من نحن في أعتابه وفي جواره اللهم ارفع مقامه عندك يا رب العالمين اللهم اجعله رفيق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واجعله رفيق الأنبياء والمرسلين والصحابة وآل البيت والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا من بركاته اللهم انفعنا من بركاته اللهم اجعل الخير في ذريته إلى يوم القيامة آمين. وعم النفع للإسلام والمسلمين من خلال هذه الذرية الطيبة المباركة آمين. بسر النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة تقبل هذه الزيارة وتعجل لنا بها بالبشارة آمين آمين آمين آمين, آمين. آمين. الله يجزيكم خير